président Lenka Saabu Ben. noo def. ça va. naka campagne bi. ça va campagne bi neex na. naka bi ak heure ndogu bi nii. non mais on gère quoi. waaw gars yi gis na sécurité moom. ñu ngi xëccoon ndogu bi jamono jii nii. non mais ñoom dañoo sonn vraiment. ñu caravane moom. bu la nit ñu bëri toppee foog nga foog sécurité bi liggéey quoi. waaw ah, la bu sa caravane mais ba nga ba nga da ngay def euh, sa déclaration de patrimoine am na candidat Amadou Ba def na of ba lan nga koy wax non xam nga loolu moom la hmm. article 37 constitution Sénégal. Hmm. mooy ndeyu charte réunie. dafa le président de la république nouvellement élu hmm. fait une déclaration de patrimoine mu conseil constitutionnel da rendre public une déclaration de patrimoine elle est destinée au public parce que le conseil constitutionnel am obligation rendre au public déclaration de patrimoine boy def off nak bo xamantene kenn duko ko gis tank amo problème hmm. bo amé problème sax kenn duko ko gis parce que une déclaration de patrimoine confidentiel hmm. li solos def déclaration de patrimoine la ñu lay fal euh, dama trouvé que c'est malsain que tay nga am ñu fal la parce que wolu nañ la jàpp nañu du sa loxo set la nga tok ba jamono jot ñu fal la nit ñi mënatul mënatul la dara nga dem ne 20 milliards la am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 yoo xamante ne daf ko jox ay entreprise yoo xamante ne fraude fiscale la ñu leen jàpp woon nga yaakaar ne loolu daf ko def pour euh, pour pour euh, de ces entreprises là ñëpp xam nañu ne am na fu yoon jaar ak moom a njort rek loolu nag bu ko jéemu leer na wax sénégalais sama alal ñii la toll lu mu ciy nëpp ñii nga xamante ne ils ont la prétention jiite réew mi te mën a bëgg a prévaloir d'une honnêteté et d'une probité ñoom dañu war a nek dans une maison de verre wax ne li la am ñëpp xam ne li ñu am ni nii nangoog nag seen at li def ci liggéey ndax fonctionnaire bu la ne milliard la yore te fekk ne moom fonction ay am emploi fonction publique nak la mos a la mos yore ko xamal ne alal réew moom def na ci def na ci nak ci du mom legui nak sir bu amul lenn lu muy nëb na wone lu muy yore de toute façon buñ ko bu fekke ne mom amna confiance mu koy waxe ne que dañ koy fal buñ ko falé dina ko def après